wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa asxaabihi wa man wala amma baad mbokki jullit yi noo ngi sant sunu borom tabaraka wa taala di julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ak mboolem ay àndandoom ak ñi ko gëm te topp ko ci ay xatba yu weesu woon ci li jiitu weer wu tedd wi ñu génne di ñaan borom bi tabaraka wa taala mu nangul ñu la ca nekk ci ay jaamu yàlla te jéggal ñu la ca nekk ci ay rëcc-rëcc doon nañ waxtaane laa ilaha illa ak charte yim am jotoon tudd lenn ci ay chartam bu njëkk ba ñu ne woon mooy chartu nga xam li nga wax lu mu doon muy luy maanaam laa ilaha illa allah beneen charte ba mooy nga am yaqiin muy kóolute ci loola ñetteelu charte ba nag ci lañ jëm tey kon mooy al ixlaas sellal sellal sellal goo xam ne su ko nit ki defee mucc na ci bokkaale borom bi tabaraka wa taala dafa wax ci alquran ne ala lillahi diinul xaalis yàlla diine jim soxla mooy ju sell waxaat ne digaluma leen lu dul ngeen jaamu yàlla te sellal ko loolu rek lañ leen digal sellal nag buñ ko waxee mooy segg jaamu yàlla gi jaamu yàlla gi bu dee dafa am lu ci jaxasoo nga segg ko ba mu sell su fekkee lu doon roog bokkaale muy jaamu keneen wala jox keneen cër bu mu moomut muy nit wala malaaka wala lu mën a doon nga segg loola ba mu set la ca des doon sa borom kese segg ko ci njistal ak lu ko nuru ba kenn taxatul ngay def ku yàlla segg ko ci biddaa itam ba mu set wecc ba dara des ca lu dul na yonent ba sallallahu alayhi wa sallam jàngalee woon ne nii lañuy jaamoo yàlla nga jaamoo ko noona kon loolu mooy sellal jaamu yàlla boroom xam-xami tafsir yi ci laay jooju muy ala lillahi diinul xaalis dañuy wax ne kooku ndigal la loo xam ne boroom bi tabaraka wa taala dafa digal ab yonentam ne ko jaamul yàlla dong te bul jaamu keneen wool bindeefi yàlla yi itam ne leen nañ jaamu seen borom képp na nga leen xamal ne jaamu yàlla gi di ko nangu lu dul su fekkee ne borom bi tabaraka wa rek moo tax mooy ki yeyoo jaamu ci lu dul ñu koy bokkaale keneen wala ñu koy wutal morom wala ndend wala nuróowaale moom rek bépp jaamu yàlla nag boo xam ne sellewul noonu yàlla kese taxul borom bi tabaraka wa du ko nangu moo tax ci xadis bi nga xam ne mu ngi ci saxiixu muslim ñu jële ko ci abu hurayra yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ne yàlla nee na mboolem ñi ñuy boole ay yëf maa ci gën a doylu mboolem ñi ñuy boole ay mbir di leen wax yéen a ko bokk yow diw ak diw ak diw nee na maa ci gën a doylu ndax saa boo defee jëf boole ma ko keneen ma bàyyi kook kooka saa boo defee jëf yàlla ak diw nee na man génn naa ca yaag diw a ca des te diw du am lu mu faye kon loolu leer wa ma umiru illa li yaabudu allaha muxlisina lahu diina xunafa loolu mooy digaluñ mboolem ba yàlla dale bind nit ñi di yónni ay digaluñ leen ñi jaamu kenn ku dul borom bi tabaraka wa taala sellalal ko itam diine ji mooy mboolem seen jaamu yàlla yi ñuy def moo xam yi ñuy wax la lu mel ni tudd yàlla moo xam yi ñuy jëf la lu mel ni yëngatuy yaram walla dem aji wala lu demee noonu xam naa aj sax des na jokkale ci beneen taxawaay jote gim jote ak sellal waaye bépp jaamu yàlla boo xam ne wax la wala muy jëf walla muy li ñuy fas ci xol borom bi tabaraka wa taala képp daa war a tax su taxul borom bi tabaraka wa taala du ko nangu bu nee xunafa nag mooy ñi nga xam ne dañoo jàpp ci diine ji jàpp goo xam ne tax nañu bàyyi lépp lu dul moom lépp lu dul moom ci xeetu diine ju dul diine lislaam lépp lu dul moom ci xeetu jaamu wiin wu bokkul ak bi yonente bi alayhi salaatu wasalaam jàngale kooku mooy xunafa mu ne lool su ngeen ko defee loolooy diinu tawxid diinu tawxid moom la borom bi tabaraka wa taala tudde ci saar woow yi muy suratul bayina diinul qayima diinul qayima mooy diine ju jub ji nga xam ne mooy xàll wi jëm àjjana wu bokkul ak diine ju jub jooju boroom xam-xam yi nee ñu ay ñall la yoo xam ne sawara lañ jëm waaye jëmuñu jëmuñu àjjana kon yàlla ñu yàlla musal ci sol ñàll wu jëm feneen fu dul àjjana te baaxee na nu jaar ci xàll yu jëm àjjana te bañ koo wàcc ci saxiixul buxaari abu hurayra radiallahu taala anhu daf ne laaj naa yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam man asaadu nnaasi bi shafaatika kan moo gën a texe ci sa ramm ëllëg kenn ku nekk bëgg nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ëllëg mu ràmm la jàpp ci sa loxo nga dugg àjjana wala mu tiinu la mu ne ko kan mooy taxe ci sa ràmm ëllëg yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ne ko yaakaaroon naa ne laaj bii yow Abu Hurayra yaa ma koy jëkk a laaj ndax ni nga xëre ci xadis loolu su rëy la si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam Abu Hurayra yaakaaroon naa ne kenn duma ko njëkk laaj ku dul yow ndax xër gi ma gis nga xër ko ci xadis door ne ko ki gën a texe ci sama ram ëllëg mooy ki wax laa ilaha illa allah xaalisan min qalbi ki wax laa ilaha illa allah ju sell ci xolam joo xam ne digganteem ak boroomam wa taala képp moo tax mu def ko keneen amu ci cër ku dul yàlla kon loolu leer ba tey ñëw na ci buxaari ak muslim ci xadisu itbaan ibnu malik kenn ci saxaaba yi la woon ñi bokkoon ci ahlu badr ci la woon bokkoon ci ansaar yi muy waa madina dafa ñëw benn bis nee na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko man dey yow yonent yàlla bi sama gis dafa tàmbalee naqari te man maay imaam yi sun waa koñ maa leen di jiite sama gis nag neexatul ba tax na su tawee bu ndox mi walangaanee day dox sama digganteeg ñoom du ma mën a jéggi ndox mi du ma mën a ñëw itam ca jàkka ja ba di leen jiite loolu moo tax yow yonentu yàlla bi dama bëgg ci yow ñaari mbir nga may ma ma defar ci sama kër benn jullikaay ci kër gi nga may ma itam dikk fa julli fa ñaari rakkaa yow yonent bi yàlla bi sallallahu <coughs> sallallahu alayhi wa sallam loolu sàkku barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax xam nga ne jàkk ji yonent bi alayhi salaatu wasalaam julli ñaari rakka bokkul ak jàkk jum julliwut yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko danaa ko def bu soobee yàlla itbaan nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam xëy ca ëllëg sa ànd ak abu bakar xiina artafa an nahaar bañ demee ba yoor yoor jot yoor yoor bu dang ba jant bi yëkkatiku nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam yëglu ca kër ga yëglu fa adintu lahu nee na ma ne ko duggal bismillah kon xam nga ni boobu teggiin ndeeg yonente bi alayhi salaatu wasalaam kenn ci saxaabaam yi nga xam ne moo leen gën a yey sax ci seen bopp annabiyu awla bil muminina min anfusihim moo leen gën a yey ci seen bopp su fekkee ne suy dugg fa mu nekk day yëglu bañ ne ko duggal mu door a dugg kon kooku teggin la boo xam ne benn jullit waru ko sàggane ci kuy dugg ci néegub jàmbur nee na mu ne damaa bëgg a dugg ma ne ko duggal mais bi mu duggee toogul dafa daldi ne fan nga bëgg ma julli fa ci sa kër gi nee na ma joxañ benn koñ ci kër gi ne ko foofee laa bëgg a def jàkka ji ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam jóg taxaw daldi nuy defal benn sàppe nu sàppe ci gannaawam mu daldi julli ñaari rakkaa daal di sëlmal nee na bi mu sëlmalee nag mu ne ko bala ngaa dem am na tuuti lu mu defaroon ci as ñam nan ko jëfandikoo nga door a dem nee bi ñu indee ñam sa nag di jëfandiku mbooloo ma dikk sukk di lekk rijaalun min ahli daar zawa adadin fajtamaaw nee na mbooloo mi daal di sukk ñépp di lekk lu mel noonu bu amee waxtaan wi day daal di tàmbali am ku laajte benn waaye ana Malik ibnu Duxaysin kenn la ci ñoom lu tax mbooloo mi ñëw yonente bi alayhi salaatu wasalaam ñëw kër itbaan di fi julli ñaari rakka ñëpp ñëw kenn gisul Malik ibnu Duxaysin kenn ci ñoom daal di ne ah kooko dem naafiq la bëggul yàlla bëggul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko laa taqul dalik bul waxati loolu alaa taraahu qad qaala laa ilaha illa allah yuridu bi dalika wajha allah ndax gisoo ne kooku wax na laa ilaha illa allah te fekk yàlla rek la ci jublu kon kooku yonente bi alayhi salatu wasalaam seedeel na ko Malik ibnu Duqaysin ne ko ku wax laa ilaha illa allah la ba noppi yàlla rek la ci jublu mais bi mu waxee loolu ka waxoon loolu ne ko allahu wa rasuluhu aalam yàllaa ko yonentam dañoo xam waaye noonu dan koo gis ak jaxasoom ak naafeq yi moo tax nu askane ko ci ñoom ndax danoo gis mu di leen laa biire di jaxasoog ñoom kon it ba tey nag àndandoo joo xam ne ju baaxut la mën naa tax nit ki ñi askane ko loo xam ne du cëram kon képp koo xam ne mi ngi góorgóorlu di baax na wattandiku àndandoo ak koo xam ne ku baaxut la Malik moom i kat jaxasoog naafeq yi moo tax ñi daal di ne kooku naafeq la waaye yonente bi alayhi salaatu wasalaam seedeel na ko seede su mel noonu bi mu noppee yonente bi alayhi salaatu wasalaam daa di ne fa inna allaha qad xarama ala annaar yàlla araamal na ci sawara koo xam ne wax na laa ilaha illa allah jublu ca yàllay kese jublu ca yàllay kese kon loolu moo tax sellal muy ixlaas doon loo xam ne mënta ñàkk ci laa ilaha illa allah bu nee nag xaraamal na xaraamal ñaari xaaj la am am na xaraamal boo xam ne mooy taxrimu duxool xaraamal ci moom sawara nga xam ne du ko dugg mukk loolu mooy képp koo xam ne faatu na te bokk ci waa ñu wéetaloon yàlla boo noppi bañ a def yu mag yum tuubul bañ a nuur itam ci bàkkaar yu ndaw di def bàkkaar yu ndaw bañ koo tuub fi nga xam ne daal faatuwaale na tawxiid yóbbaalewul bàkkaar yu mag yóbbaalewul bàkkaar yu ndaw yu bari yoo xam ne daf caa nuur bañ koo tuub kooku moom du duxul la am yal na nu yàlla boole ci mooy koo xam ne day jóg rek dugg àjjana mu jeex beneen taxrim bi ci des nag mooy araamal ci moom mu sax ci sawara dana fa dugg waaye araamal na moom mu sax ca mooy xam ne dañoo yóbbaale tawxid ba noppi yóbbaale bàkkaar yu dul jeex ak ay àq yu jeex ñooñu araamaluñ ci ñoom ñu dugg sawara borom bi nag mën na leen a baaxe jéggal leen ñu bañ koo dugg waaye nag su leen bëggaloon bañ dugg ko it tawxiid dañ yóbbaale muy wéetal yàlla ga mooy tax mu génne leen sawara dugal leen àjjana kon kooku mooy taxrimu xuluut fii mu waxee nag ne ku wax laa ilaha illa allah di ci sàkku ngërëmal suñu borom tabaraka wa taala jublu ci yàllay kese kooku yàlla araamal na ci moom jaadu nañu dégg ko déggiin woo xam ne du caagi ni mooy wax kese kese waaye wax bu ànd ak ak xam la ndax laa ilaha illa allah kat bu ñu waxee ne lii lay jariñ ak lii lay jariñ mooy laa ilaha illallah ju ànd ak lam war a àndal moo tax al imaam al xasanul bi amee ku ñëw fi moom ne ku man de dama léegi ñu ne ku ne laa ilaha illallah rek dugg àjjana mu ne ko ku wax laa ilaha illallah te joxe ak xam joxe ay farataam kooku dana dugg àjjana ko ne xam ne wax ji du waxi kese waaye wax ju ànd ak jëf la imaam bu ñuy wax wax bu mu Munabbah bañ ko laajee ne ko xanaa du laa ilaha illallah mooy caabi àjjana daf ne oxo kay waaye nag caabi joo gis ju ne dafa am ay bëñ caabi joo gis ju ne dafa am ay bëñ loolu mooy charte ya ak ya ca tënku mu ne ko boo indee caabi ju ànd ak i bëñ boo ubbee ñu ubbil la waaye boo indee caabi ju amu ci bëñ boo ubbee kenn du la ubbil kon ñu yëg ne laa ilaha illallah lu màgg la waaye du li ñuy wax kese kese mu daal di jeex bokk na ci nag yi nga xam ne dañuy gàllankoor sellal ba nit ki jëfam du sell mooy fekk jëf joo xam ne lu ñu war a sàkkoo tuyaaba kese la nit ka ñëw di ko wuti àdduna kooku musiba la moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xadis bu wér ubay ibni kaab nettali ko daf ne ko bégalal xeet wi bégalal xeet wi xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa ci ak leer ak diine ak kaweeg mbir ak ku jàpp ndal ci kaw suuf si bégal leen ci yooyu waaye nag képp koo xam ne ci ñoom day fekk na jëfi àllaaxira jëfi àllaaxira loo xam ne dañ ko war a fàggu ngir àllaaxira mu di ko jëfe ngir àdduna yi kese nee na kooku ëllëg amutub cër fa àllaaxira yàlla ñu loolu li ñu koy gën leeral <coughs> mooy xadiisu abu hurayra ci saxiixu muslim jëfi àllaaxira nan lañ ci jubloo àdduna yi kese abu hurayra ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ne borom bi tabaraka wa taala bu ëllëgee ci yowmal qiyaama ba mu wàcc moom suñ boroom di atte jaam ñi fekk xeet yépp a ngi bóof kenn ku ne di déglu yonent yi bóof ñi gëmoon bóof ci seen gannaaw ñiy déglu lu seen boroom di wax nee na bu seen boroom agsee ñi muy jëkk woo ñetti nit lay doon kenn ki nee na dafa boole woon alxuraan jàng ko bu baax a baax a baax keneen ki nee na dafa faatu woon fi sabilillah keneen ki dafa yoroon alal ju bari di ko joxe ñett ñooñu lay jëkk woo ñu ñëw taxaw mu jëkk woo borom alxuraan ji ne ko yow di jàngaloon naa la li ma wàcce ci sama yonent mu ne ko waawaaw mu ne ko loo ci def loo ci def mu ne ko dama ko daan jullee guddi ak bëccëg borom bi tabaraka wa taala ne ko waxoo dëgg malaayika yi jub taxaw ne ko waxoo dëgg kon kooku daf ko jàngoon rek borom bi ne ko da bëggoon ñu ne ab jàngkatu alxuraan nga te nit ña waxoon nañ ko kon loolu rek nga ci am jeex la da bëggoon ñu ne jàngkatub alxuraan nga te waxoon nañ ko kon jeexal nga loola nga ca am kon noonu lañuy ñuy fekki loo xam ne àllaaxir rek lañ ci war a sàkku nit ñëw di ci sàkku àdduna nee mu woo borom alal ji ne ko di yow maa la yaataloon sa wërsëg ba aajo wóortu woon sàkku ndimbal ci kenn nee na mu ne oh kay yow saa borom noonu kay nga ma defaloon mu ne ko waaw alal jooju loo ca def mu ne ko daanaa ci jokk bokk de daanaa ci joxe itam borom bi tabaraka wa ne ko waxoo dëgg malaayika yi jóg taxaw ne ko waxoo dëgg borom bi ne ko da nga doon joxe ngir ñi ne da ngaa tabe da nga doon joxe ngir ñi ne diw moo tabe te loola wax nañ ko waxoon nañ ko booba kon loolu nga ci am loolu bari na lool mbokki jullit yi néew na ci jullit yi ñuy def lu rëy boole ko ak di ko nëbb di ko suturaal yàlla kese tax ndax xam nga ne ci jaamu yàlla ku bëgg a nattu sa ixlaas fu mu ku bëgg a nattu sa bopp foo tollu ci sellal faw nga gam-gamle méngale comparé diggante sa jëf yi nit ñi fekke ak ya nëbbu yi ci gën a rafet ñaari rakkaa yi nga ñëw di ko julli ci mbooloo mi ñu lay xool ak ñaari rakkaa ya nga tëju ca sa néeg di ko julli xoolal yi ci gën a rafet su fekkee ñooyam képp yaa ngi ci aw yiw su fekkee ne yi nekk ca biir néeg ba moo gën a rafet nag kooka nee ñi nee nañ yaa nga bokk ca muqarrabun ya ña jege seen borom su fekkee yi ci bittee gën a rafet nag yaa ngi ci yoonu àll ku gaawal gaawal kon jaamu yàlla gi faw nit ki yëg ne boroomam la koy defal yëg-yëg boobu mënu cee ñàkk nee na bu noppee mu woor ki faatu woon ci jihaad ni ko yow ci luñ la rey loo doon def ba faatu mu ne ko ah yow de da ngaa woon jihaad ma jóg di xeex ci saw yoon bañ rey ma borom bi ne ko waxoo dëgg malaayika yi jóg taxaw ne ko waxoo dëgg yàlla ne ko da nga doon xeex ngir kon loola nga ca am abu hurayra radiallahu taala anhu ne bi yonente bi alayhi salaatu foofu mu dóor loxoom ci sama bëtu wóom ne ma yow abu hurayra ñett ñooñu ñoom la yàlla di jëkk dugal sawara xoolal loolu yooyu jaamu yàlla yu war a mën a sell yu nit ki war a mën a yéege ay daraja ci àjjana muy jàng alxuraan ak dépenser fi ak xeex fi sabilillah yooyu nga xam ne ku kawe ci kaw suuf ëllëg ci yi gën a mën a kaweel nit la bokk far mu bokk ci yi nga xam ne mooy delloo nit ki ba mu bokk ci ña ñuy jëkk a lakk faf lu tax mooy daa doonoon loo xam ne àllaaxira lañ ko war a wute mu teg ko fële di ko wute àdduna kon mbokki jullit yi mbir mi aajana seetaat lu aaja defaroo ngoog lu mat a bàyyi xel a ngoog allahuma aqsim lana min xashiyatika ma taxulu bihi baynana wa bayna maasiyatik wa min taatika ma tuballiguna bihi jannatak wa min alyaqini ma tuhawinu bihi alayna masaib addunya allahuma matticna bi asmaacina wa absaarina wa quwaatina ma axyaytana wajcalhu alwaarisa minna